rek ne man ah Manga lañ lay jiiñ dëgg la war a du dëgg muy <laughs> Mangante Manga Manga fu mu nag ñu bëri ñu comprendre dañu yaakaar na yaa yàq démb da nga conférence de presse bu rëy ci digg réew mi ñi nga xam ne seetaanuñu ko dégguñu ko nag dañu bëgg sa kàddu dégg la nga ko wax ndax Manga fu mu ne nii réew mi ñëpp rawatina diggante Basul Joal Fadiouth Jifeer eh, ak fi nga xam ne nag mooy Jonwaar ak yooyu yëpp Île des Saloum ñëpp yow lañuy déglu. salaamaaleykum man de dëgg rek moo ma tax a wax Robert Diouf musuma bugg musuma bugg fii la ma wax man ma nga de ne bombardier bi muy bëreeg Yékini bokk naa ci ñi tax ñi ko doon xeex waaw booy xeex nit ki nag ba ka ka ngay xeexal daanu loolu mooy wane ne kay loolu sax dafa yenul maana waaye man ma nga de di doomu séeréer dëkk ci dëkk bi wax dëgg yàlla awma benn problème ak ki nga xam ne moom mooy ni waaye Robert Diouf jëppi na ma jëppi boo xam ne lu am mbëru séeréer buy bëre mu ne maa nga dem moo jaar ci suuf sama diggante gi ni doomu séeréer la man may doomu séeréer afaxaana tig na taxum séeréer tax na taxum Afrique na faxa pangolé mun naa ko wàcc ci yàlla man de séeréer laa waaye maa ngi ci yoonu Yeesu Krista mun nañu dem nag ba fu ko neex mun nañu dem ba ci jàngu bi ma waat ne man loolu ñu may jiñ amul bu buggee ñu dem ba ci pangol yi ñu waat ne loolu mooy jiñ amul moom bu fekkee ne Magadé moom mooy ëlbatku di xeex Yékini loolu man ban chance la ma amal man Yékini man man manga Magadé ndamu séeréer yi mooy ndamu séeréer yi adduna bi yëpp kon man kay su may xeex damay xeex keneen koo xam ne dafay daf dafa bëgg foqati ndamu séeréer waaye du ma ko du ko xeex moom nag musuma buggu man nag professeur éducation physique la intellectuelle la xam naa yoon samay avocat nee nañ naa wax ak dinañ wax ak sama eh, eh, mbokk waxtaan nag ak man luñ ciy def ñu def ko mais ku xool combat bi bu baax diggante balagay ak Yékini boo génnee affaire askan ak xeet ak supporter teg na le Yékini ci boppam dafa buggoon cabaxal man en tant mbër li ma gis Yékini ci boppam dafa buggoon cabaxal balagay Gaye cabaxal boobu mu ko cabaxal nag ba Balla Gaye roppi cabaxal dama ne caxa caxabal boobu ma ko caxabal bala ngay de ko roti def ko caxagun da ko roti def ko caxagun du ay waxu pour reetaan war a pour saboter bi ko bala ngay cabaxale bi yàkk ni buggee cabaxal bala ngay dafa génn caxa caxaxal caxabal bi def ko caxagun bi ko defee caxagun ca daanu waaye loolu man lu luy sama yoon ndax caxagun gii nga xam ne moo daanal yëkk man du man ti man la jóge man maa nga de a fogale séeréer fax na taaxa ina tak taxun fak na feexana fongol fogol seeri ne njaga ñaaw sanjara ana ka feex na eh, eh, jonwaar faxana tig na tin na taxu na ndol ndol jorom tin faxana fik a fixatam taxum tax na ka seereer bakana sarr demba sarr abdoulaye sarr siré sarr madior diouf demba diouf koddu diouf biram ku na jeeba diouf ka na fana na tax seere ina tax taxum na fina ka fula jom a pangole maka faxana ndik na tan tax taxu te ka manga de fakana ka fula Robert Diouf fula ka fayda cabaxal ne fakana Yékini cabaxal Balla Gaye ne fakana caxabal a ka caxagun naka fakana caxagun maga dene kat caxagun eh, ma wana fakana a kata caxagun e ma ware fakana maga de bakana kana maga naka faka caxagun waa mais manga <laughs> kon manga nga ne Yékini da doon jéem a cabaxal Balla Gaye daf ko caxagun <laughs> musuma seetlu loolu cabaxal caxagun cabaxal caxagun caba caq caq caga